asalaamaaleykum warahmatullah. rahmatullah mbokk yi ñu leen di nuyuwaat bu baaxa baax di leen jaajëfal eh, ñu leen di présenté waat équipe bi nga xam ne ñoo yor sécurité ci biir Serigne Mouhamadou Kara la seen njiit di Serigne Bara Sakho moo fas wax seen tur ko defee mu jotale ay kaddu moo xam kaddu yi soññalee doon wala mu ñaax ñi mu àndal wala sant yi ngërëm lu mu ci mën a doon rek Serigne Bara ñu ngi lay jox kaddu gi bisimilah. Ah, sécurité bi ci biir kër gi boo ñu ci waxee danañ ci sawar muy kaaraange maanaam ci déggin boo ko déggee dana dana dana dis lool nag ndax sëriñ bi moom aar ko yombut ndax da jëmm joo xamante ni Sëñ Tuubaa moo ko aar ba noppi kon suñ ne kaaraange aar ko yombut waaye buñ ne kaaraange maanaam matati doomu aadama yi nga xam ne ñëpp fenn fu nekk la waaye di jóge di ñëw loolu moo war a ñu def kaaraange kaaraange googu nag moo waral ñu ñu def benn association tudd ko sécurité borom diwaan si la ah, di ci di di di di di di sécurité biir kër gi daal waaw loolu lañ si loolu lañ si jublu. ndax man mën ñoo xam sécurité bi ban année ngeen ko sosoon. waaw sécurité bi ñu ngi ko sos année deux mille quinze yàggagul dara waaw ci kaw ndigalal sëñ Modou Kara Sylla la man ak ah, sama collègue bi nga xamante mi maanaam yàlla dogal na moo sos ci man su ma moo yore kàddu gi sax di wax xam naa ne yàlla ma xam naa ne day dañ ñoo wax la mënuñoo ñàkk waaye sax moom la waroon wax loo muy sëñ Modou Kara Ndiaye bi yàlla dogalee ñu dem ci sëriñ bi ah, laaj ko ci ndigal mu ne ñu am ngeen ci ndigal te nu ngeen ko defee baax na ah, ci lañ ko daal di sos muy année deux mille quinze ci fin fin année bi sax la mën nañ ne secret bi yii lépp lépp lépp matagul deux ans ndax dafa dugg ci fin fin année bi la ak te gis nga presque it année bi mi ngi jeex kon mën nañ ne secret bi te gis nga ko am na doole lool biñ koy tàmbalee bari woon na lool waaye loolu dafa am ci ndaje moo moo dem loolu da ci am saa yoo wootee rek gis junni nit jàppal na yow ñaar fukki nit nga ci war a am yu assuré te man nag jàpp naa ne équipe bi nga xamante ne tey jii moom laa nekkal fii nii ñooy ñi nga xamante ne ñoo ci wër te ñoo dynamique waaw loolu daal moom naa ko ci bu baax a baax liggéeyal sëriñ bi la kuy def ku nekk sa bopp ngay defal waaw kuy def suñu jàmbaar ji ci biir nag moom day jénn jëmm joo xamante ni bi maanaam moom day dem xaaru kenn ku taxaw yaa taxaw fa nga taxaw waaye moom day dem voilà jërëjëf kon Serigne Bara Sakho ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal di rafetlu kàddu yi nga xam ne tam jottali nga nu ko comme ni ñu ko waxee rek noonu la soxla ñu ay taxaw yoo xam ne yu jëm ci biir kër Serigne bi ndax kenn ku nekk boo déggee ñu fa xam ne kaaraange moom yombul tayit euh, faaw nit ki am nu mu comportement ba doog koo man ñu lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal di la ñaan ñu teew kay déwén déwén.